jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 yi ñu ngi leen di nuyu euh, di leen siyaar bu baax a baax euh, di am mbégte ci ñëw fii vraiment seet si sunu sunu sunu père sunu xarit fan yi nag ku ne ku ne xam ne daa tee coow waaw moom vraiment euh, nii la aussi tamit lii la ñuy xaar ci moom parce que kilifa bu say njaboot amee ay réero c'est normal nga jël say engagement génn wax mu ubbil ñu ay portam biñ ko woowee wax dëgg yàlla mënuñu ñëw leen samay njaboot lañ samay njaboot ngeen ñëw leen lépp loo xam ne war naa ko cee leeral rek dinaa ko ci leeral tey moom lañ fas yéene daral fii ci people 221 mu di père Ousmane Seck eh, dañ koy bàyyi mu nuyoog ñi koy suivre fii ci people 221. waaw fiis maa ngi lay delloo nuyoo. Mm-hmm. Eh, di nuyu internetu people 221. Mm-hmm. di nuyu Sénégal gépp rek. Mm-hmm. fu Sénégalais nekk moo xam ci biir réew mi wala jaspora Eh, nuyu bi nag dañuy tàmbale ci sant yàlla encore une fois julli ci yonent bi sangu sangu yi salallaahu alayhi eh, gërëm suñu wayjur yi ñaanal leen fu ñu tëdd gënal leen ndax àdduna moom metti na bëri na coow waaye nag ñu nag loolu ñoo ànd di ñaanal suñu kilifa gu baax yi Seex Muntaxa Basiru mu yàgg fi lool ak kilifa diine yëpp nag yi ci réew mi ak yi ci bitim réew. Mm-hmm. Eh, di ko jaar nag ci sama sëriñ Cheikh Bass Abdou Khader. Mm-hmm. di nuyu ñëpp daal di am mbégte pour am ak yéen waxtaan rek comme mm-hmm. li xew ci coow. ñu ñu waxtaanee ko rek quoi. voilà. Euh, fi ma njëkkee euh, fan yi coow li bari. waxuma lan moo xew waxuma kii a tooñ wala kee moo tooñ mais coow li bari fan yi euh, naka nga ko jàngatee. waaw siiw du jàmmi borom rek. comme ñun ñoo opté pour nekk ay musiciens. Mhm. mu nekk famille boo xam ni. Mhm. Ah, dañ ñoo xam. Mhm. loolu moo tax amuñu vie privée. amuñu vie de famille. c'est normal lu xew ci ñun lu mu néew néew rek. yéen eh, xam nga yéen yéen a koy njëkk a tasaare. xam nga jox ko buzz. parce que yéen tamit yéen loolu moo leen di dundal quoi. <laughs> ndeysaan <laughs> mu mel ni mu mel ni mu mel ni gisee biir wax léegi danga nga ni hmm. ñu nekk famille boo xamante ni euh, hmm. dañu siiw amuñu vie de famille souvent ñu gis ni problème yi am ci famille bi xale yi lay gën a dal que mag ñi parce que mag ñi doo leen dégg ci dara euh, lan mooy problème xale yi ba souvent problème bu amee rek ci farmaare ni xale yi la ñuy wax ah c'est une très bonne question loolu boo gisee mooy lii ñun du xale yi ko sincèrement mm-hmm. parce que kera yàggul dara Keba génn na ci benn euh, site la xaw ma mhm. ni xale yi amuñu kilifa mhm. coow li na kur mhm. mais dëgg la parce que ñoom bu ñu xoolee ci ñun lu bari mën na leen bañ a dal parce que ñun way nañu ba xam nga fi mu nekk ni macha allah amatuñu dara lu ñuy prouver te lu bari yàlla musal nañu ci nag wax dëgg yàlla donc ñoom bu ñu xoolee ci ñun. ku am kuddu waroo lakk. comprendre nga. Euh, ñu ñu ñu am kilifa daal ñu bootu. lu ñuy def. tàggoo. lu ñuy dugg laajte. bu ko defee du ma ne dinañ juum mais seen njuumte mën naa bañ a bari. loolu rek mooy différence bi entre ñun ak xale yi quoi. sincèrement. est-ce que bi amoon entre yéen nga xam ne da doon jékki-jékki dem kër Mapenda. jékki-jékki dem seeti sunu kër papa Thion yàlla na ko yàlla yërëm est-ce que demalante boobu noonu mm-hmm. euh, xale yi ñu ngi koy def ci entre seen i kilifa ak ak parce que yaakaar naa xale bu ñu jékki-jékkee ni xaaral ma dem seeti père Ousmane père tey affaire yi fii la toll fii la toll est-ce que yaakaar nga ni réeroo dina am ci entre yow ak ñoom ñoom ñi ngi koy def mais pas comme ñun niñ ko doon defee mm-hmm. loolu moo waral lii ah entre ñoom ça va ay xale lañ ñooy a mën a ñun ak ñoom. parce que ñun ay ay ay papa lañu du dëgg. mais ni mu waroon demee mooy li ma la wax rek. ku am kudd waroo lakk. te l'expérience fait la différence. loolu tubaab wax. donc boo boo njëkkee ñoom njëkkewuñu lii. coow li ak euh, musique bi ndax ñoom ci ci lañ ci lañ leen jur quoi. ñu judd ci donc. ku ku ku euh, ci gétt gi naan ci meew mi c'est normal. Mhm. mais y a un mhm. boo toppee coow. Mhm. wala succès. nga yëg sa bopp. wala nga foog ne yow yow la. doo jóg ci erreur ak coow c'est normal. ah da nga xam ni. am nga ay ñoo la jiitu. lu la jaaxal. no yow mën ngaa bañ am problème. Mhm. parce que ñoo fekk na ñun ñu dund ko ba romb ko. Mhm. léegi yow boo ci tolloo rek. Mhm. boo boo boo bootoo rek. sa problème mën naa bañ a metti parce que fekk nga fi loolu. ci nga juddu ci nga màgg. kon. question bu ñëw réponse baa ngi fii. parce que foofu noonu dama jàpp ni sax famille bu war a mën a neex la parce que. Hmm. lépp ay non neex na moom. bu gën a mën a neex parce que ça ah. bu gën a mën a neex ça veut tey Bambaali wala Waali nekkul karatéka yow nga nekk musicien dama jàpp ni ñëpp ay musicien lañ kon staff bi war njëkk pour man ci kër gi la war génnee que avant ñuy uti yeneen staff. loolu mooy yoon. Hmm. am nga famille boo xam ni. Hmm. xëy na baa ñuy guitare wala clavier. Mm-hmm. mais famille la boo xam ne am na ñoo xam ne alxuraan la ñuy jàng. Mm-hmm. ñii xasida lañuy jàng. Mm-hmm. ñii ñu ngi ci ay docteur lañu. ñii ay am na ñuy sàmm am na ñoo xam ne dañu ay gétt. mais comme ñooñu. liggéeyuñ ci liggéey boo xam ne média day am si ñoom yoon. loolu moo tax dañuy foog ne famille bi ñëpp ay musiciens lañ. non. c'est une très grande donc. Euh, loolu moo tax. Euh, ñu foog ne ñëpp dañuy dañuy way mbaa dañuy musique mais non. am na xamuñu sax ni ñuy yëkkatee tànk fecc wala tëgg wala way. jàng alxuraan rek la ñuy def ak jàng xasida ak bay. ah. ma ñëw ci li nga xamante ni moo waral coow li mais damay des ba tey ci famille bi ñu gis ni problème bu mel ni c'est la du ma ni c'est la première fois mais c'est la première fois sax laa wax faramaare ni xale yi am problème euh, ñu gis ci kenn ci kilifa yi jël ay engagement taxaw di wax ñu njëkkee ko ci yaw euh, da nga woo ñoom waxtaan ak ñoom wala yow da nga jël say engagement génn di waxtaan ak ñoom. Euh, bi ci njëkk mooy. Mhm. kii suñu kilifa ñun ñëpp nekkoon fi di coon. Mhm. faatu na yàlla jël na ko yàlla ko yàlla yërëm. allahumma amin. Euh, Mor Dior Seck ma nga États-Unis mhm. yàgg na fa lool. Ablaye Naar mii taaw wayul tëggul feccul. am na keneen suñu doom baay ma Fatim mi ngi fi waaye moom it soriwu na sori na mm-hmm. Mapenda mi ngi Paris mm-hmm. depuis deux ans et quelques mm-hmm. mi ngi France Assane Ndiaye mi ngi fii mais xëy na man maa gën a parce que man Kéba rek laa mag Kéba ma topp ci man donc il faut ma jël samay responsabilité parce que mënuma coow am site bi di ma woo wala ku mu mën doon pour bëgg au moins ku mu waxal. may daw non je prends toutes mes responsabilités. loolu moo tax. ah ma wuyu leen ngeen woo ma wuyu leen parce que. mënumaa daw mënuma daw média yi mhm. parce que xam nga sinon mën nañ fi nekk di euh, raconter di n'importe quoi mhm. alors que boo ñëwee fi nga war a ñëw mhm. li nga bëgg a xam mën nga ko xam comme yéen da ngeen di tas xibaar rek ah waa ñu wax leen li fi nekk ah. mais mais d'après bi coow li amee jokkoo nga ak ki nga xamante mooy mooy Mapenda euh, gën a mën a waxtaan ak moom pour mën ci gën a jël ay engagement pour Bambaly est-ce que man soxla naa di jokkoo ak Mapenda ci loolu koo xam ne sama doom la. Mhm. sama doom du ma si xaar Mapenda. Mapenda mhm. ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. tey jii bu amoon coow ci koo xam ne man maa ko jur. moom lim ci war a def. da koy def lim ci war a wax koy wax. xam nga la benn la. kenn ku ci nekk sa doom mooy sa doomi frère mbaa sa sœur. donc euh, fi. coow li bi mu xewee yàggul. bon ñëw naa gis mu woo ma appel en absence. Mm. comprendre nga. Mm. mais xaaruma ko pour pour problème bi yi dañ koy régler. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. ça. Mm-hmm. mais ñu gis ni problème bi mu amee. ñu gis ci ku ci mel ni ay aadamoo genre tey mën naa ne ñu bari sax jàpp nañ ni moom moo régler problème bi <laughs> parce que est-ce que tey jot na famille bu toll nii xale yi war nañoo mën a may fit ñooñu ba ñooñu taxaw di régler seen problème ku ci mel ni ay aadamoo. est-ce que Adamo kenn mënal na ko dara. très ce que kenn mënal na dara Adamo. <laughs> dëgg de. Adamo man li ma gis mooy da doon saagante sax ak euh, yaayu xale bi. Mhm. man jot naa yaayu xale bi. Mhm. jot naa xale bi. Mhm. mais man jotuma Adamo. non du mooy bos day négri. loolu la ah, waaw. bu moom bu fekkee ne daf ko mën a régler sax mu régler ko. Mhm. ci njekk ak teranga aloo xam ne amul saaga amul weer. Mhm. amul xas. Mhm. amul yàq. loolu rafet na ci diggante jullit ak moroomam. amul problème. mais daal je pense que problème bu bu waree régler. lii nag affaire famille la. famille bi ñoo war a gisante. waxtaan. ak famille xale bu jigéen bi. coow li jeex. d'accord aadamoo nag bu fekkee ne mën na ko régler te coow di jib mhm. alhamdulilah mhm. waaye yaakaar naa ni day kuy ñëw fii nga war a ñëw nag mhm. waaw parce que fii la xewee waaw ah, d'accord mu mel ni yaa ngi doon wax ne ñu ngi doon def ay démarches di jéem a lijjanti coow li ba ñu trouver solution euh, coow loolu ak démarches yooyu noonu fan nga ci toll mbir mi presque jeex na alhamdulilah soo bëggee dégg-dëgg alhamdulilah mbir mi jeex na parce que affaire u xale la. ñu def yëfu xale. mais xale day def yëfu xale mag def yëfu mag. jigéen def yëfu jigéen. góor def yëfu góor. donc je pense que des na tuuti. leneen la ñuy wax ndax Sénégal peut-être ci lii rek lañuy ñuy dox nag dama yàlla baal. maa ngi jégalu mais Sénégal moom. bës rek moo fi. bës bu xew. ñu wax ci dox ci. wax ci dox ci mu jeex leneen ñëw ñu fàtte. wax leneen mais lii moom bu ànd ak dogalu yàlla léegi mu jeex ñu jublu ci leneen voilà. mais comme li nga wax coow li jeex na te mu nekkoon coow loo xam ne coow xëccoo la yaa jur juróo kon da nga ñu trouver solution ba bambaal yi rek parce que yow man ma la déggee yaa ngi naan xale bi ko xool xam ne mariage bi may sa biga may sa biga mar xale bi génnu ci kon ça veut dire da nga ñu convaincre bambaali ba moom mu d'accord ni moom la. xam nga bambaali xale la rek boo xam ni. Hmm. weesuwul ci def erreur. Mm-hmm. comme ni ko mag ñi di defee góor di ko def jigéen di ko def. Mm-hmm. am na foo xam ne ba foo tolloo. Mm-hmm. ñun du ñu basé wu ci xalaatu Bombali. wala sañ-sañam. ndax doom la boo xam dañ ko jur te peut-être liñ ko bëggal wala liñ koy niñ koy protéger moom ëllëg lay comprendre. après gis nga fi ba tàyyi ku jur sa doom. Mhm. bañ ko parce que mhm. yaa xam lu tax. Mhm. soit da nga ragal lii wala da nga ragal laa. te li ngay ragal de. la ca kanam moo ko gën a metti parce nag genn wàll musiba. moo gën musiba naaru laay. te jur doom. wala ñu jël sax nit ak noppam ak ni mu toll ñu may la ko. nga di ko bañ. non loolu moom bu xamoon. coow du jib. waaye comme xamul nag. ñun nag ak expérience bu ndaw bi ñu ko màggee. ñu tanee ko ko. ah dañ ko koy dimbalee rek quoi. parce que suñu bopp la ñuy dimbali quoi. mais ñu gis ni ba tey moom génnul wax ci mais ñu gis ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy ay xaritam mën naa ne ñi koy sinabal barki démb am na kuñ ci jël muy accuser xale bu jigéen bi naan moo ma doon yónni ma koy jëndal ay ay ay affaire est loolu tamit baax na ci problème boo xam ne toll na fi ñu war koo régler. mais yow man laaj la benn question est-ce que rafet na entre nit ak nit. Mhm. dëgg la. nit ak nit est-ce que loolu rafet na. Mhm. nga jël nit comme yow. Mhm. nga di ko weer. wala ngay wax ni nii la mel. surtout lii lay def. surtout te nit ku nekk loo baax baax. am na loo bon la nag loo bëggul ku ko xam mm-hmm. weer nit mm-hmm. xas nit mm-hmm. yàq nit dafa xew te lu ñaaw nag xew na dugg ci réseaux sociaux waxal nit non même bu fekkee li ngay wax dëgg la ko même bu fekkee li ngay wax dëgg la xam nga ni lii ngay wax dëgg la suturaal ko te yàlla tax te kaa ma leen de kenn ku ci nekk soxla nga yàlla suturaal la ndax ku nekk am nga looy def loo xam ne bëggoo ko ko xam wala loo xam ne bu ko bu la yàlla weeroon dootoo tekki dara ci kanamu nit ñi mm-hmm. kon ñu bàyyi ci xel bu baax mm-hmm. te xam ni ñuy wax nag mm-hmm. mën naa nekk fan su bombaali mën na nekk stafam xaritam mën na nekk xaritam ndax affaire farfarloo sax da ciy mën a am nit ki loo ko bëgg bëgg bëgg yonent bi de nee na sallallahu alayhi wa sallam bu nit tooñee nañ ko dimbali bu ñu ko tooñee nañ nañ ko dimbali bu tooñee nañ ko dimbali buñ ko tooñee nañ ko dimbali ni ñu koy dimbalee nag mooy buñ ko tooñee ñu fexe nag mu jot ak xam waaye bu tooñee ni ñu koy dimbalee mooy xamal ko ni yow da nga tooñ nekkoo ci dëgg da nga juum ndax ku dul juum amul yàlla rekk moo dul juum mm-hmm. mais nag weer nit ak xas nit mm-hmm. yàq nit loolu moom gisuma daray àdduna nag lu ko fi jar. Mhm. sincèrement. Mhm. Ah. mais kii sa doom di Bambaly yaa ngi déggante ak moom. ah mais yow même bu dul lii sax. Mhm. bu dul lii kay famille dañuy déggoo dañuy gisante Bambaly. kon jàpp ne nangu na. xam nga nangu na ak nanguwul eggaguñu foofu. fi ñu toll mooy fexe ba coow li jeex. ñu récupérer xale bi. indi ko. comme ni Faramaren yëpp ni ñu leen di reconnaître ñu reconnaître ko noonu. Mm-hmm. mais coow li jeex xale bi nit la nag nañu bàyyi coow li quoi mu mm-hmm. jeex. Mm-hmm. te sénégalais yi sax tey ñu ngi maa ngi gis ñu ngi xaar naan li bambali sax bu doon may moom xale bi dama koy jël takk ko wan leen ni jigéen dañ koy suturaal. mais loolu moo rafet parce bu dee benn fan participé na ko ci soirée am waxuma laa xale bi ñuy wax ni fu nekk doon na fa dem di ko dooleel ci ay soirée am ba ci seeni soirée yéen. dafa xamul rek. bambal dafay xale. Mm-hmm. man bu ma gisee ñu naan xale bi sax papa bombaali man ay ree ma may jàpp. <laughs> xale yooyu la ñuy wax papa. <laughs> papa bombaali mais ñun la ñu war a wax papa xalaat ko léegi maam la ñuy wax quoi <laughs> bombaali bu ma xalaatee bi ñuy dem Touba yàggul dara maa ma penda. Mm-hmm. ñuy dem tuuba ci suñu ginnaaw. Mm-hmm. la juddu. boobu ñu ngi Touba. bërki démb la. mais comme les années passent vite. Mm tey jii ñu naan papa bombaali alhamdulilah. Mm-hmm. donc Bombali xale la. Mm-hmm. nekk ci yoonam nag. Mm-hmm. te coow li coow jigul bant. bay jig nit. te coow li dañ ko war a fay mu jeex. moom dafa nekk xale. nekk ci yoonam di dem. kon tal na leneen nag vraiment lu dul ay wax yi quoi. Mhm. donte mënul ñàkk. Mhm. parce nekk ñu àjjana nag àdduna lañ nekk c'est normal. Mhm. ay coow du ñàkk problème du ñàkk ay jafe-jafe. mais problème boo gis ki àdduna rek am na solution. ci solution bi nag ci lañ toll. pour mu jeex. mu continuer yoonam quoi. mais mën nañu xaar bu coow li jeexee ñu nga def ci ay démarches daganal diggante parce que xam naa ne ku ñeewantal xale bu jigéen bi nga. Euh, dama ko natt rek ci sama doom kenn ku ci nekk tamit boo xoolee ci sa sœur. Mm-hmm. sa doom sa jabar. Mm-hmm. sa jarbaat. Mm-hmm. sa sët. bu jigéen bu toll woon ci situation yu mel ni parce que jigéen elle est sans défense. te jigéen wax dëgg yàlla bu ngeen amee fu ngeen li gën a cher ci moom. mooy mu jox la xolam ba ngeen yegg foo xam ni. xëy na ëpp na. waaw léegi loolu kooku bu boolee yooyu yëpp ba pare. taxaw di réclamer. pour nga reconnaître doomam. léegi bu fekkee ne yow reconnaître loo ko. léegi xale bi bu màggee léegi moom. nan lay dundee loolu. day metti donc nag ku ko xool ci sa bopp xam ni lu jafe la. lu metti la loo xam ne lu jafee dund la. kantaa euh, nag pour ay daganal diggante loolu moom sëy moom ci aras lañ koy takke yàlla moo koy dogal. Mhm. bu waree nekk man du maa koy def. Mhm. ah bu nekkoon it dina ma neex. waaw mhm. ah, parce que xam nga xale bu jigéen bi. Mhm. Ah, bëgg la am te mhm. dégg naa ko mu naan. Bombaale bëgg naa ko bëgg goo xam ni leeru ma sax dinaa mës a bëggati góor comme ni ma ko bëggee. nit amul lu dul xolam. ku la bëgg. ba deselu la dara kooku bu kooku moom vraiment bu amoon lu ëpp mbëggeel dala koy jox. kon waaw loolu laa ci mën a tontu xaw ma nag. ndax. tontu naa la normal waaw. la dëgg fi xale yi ban xale nga ci mën a citer ni euh, souvent da ngay toog di ko bàyyi xel xam ni kii mën naa def carrière ci musique wala kii euh, gis naa talent ci moom muy mën a way. moo bari na bëgguma hmm. lim parce que boo limee di nga juum. Hmm. wala nga fàtte génération bi ay Sidi Diop. bari na xam nga boo limee di nga bàyyi. Hmm. te booy lim tamit ah limoo sa waa kër. xam nga day xaw a tey waar. dëgg loolu moo tax du ma bëgg a lim. mais sañ naa ci wax kenn koo xam ne rek koo xam tey ji moo waral coow li muy bombaale. Mm-hmm. bombaale xale la boo xam ne macha allah. Mm-hmm. Euh, li tax bëgguma mu yàqule. Mm-hmm. wala bëgguma ay coow yi di ko kale. loolu ci la bokk gis naa ni am na avenir moo xam ni. bu ñu ko encadré. moom it mu xam li mu bëgg. nangoo am kilifa. nangoo bootu. war naa mën a tekki ci musique parce que mi ngi ci yoon bi. tey nag bëgguñu kenn nag. ah wala lenn lu ko lu ko lu ko lu ko baare mm-hmm. loolu moo waral mm-hmm. man ma génn di wax parce que deret dafa fort mm-hmm. génn golo gudd na mais loo ci laal boroom yëg ko bon bari na ak ñeneen ay xale yoo xam ne ñi ngi ci yoon mais euh, ndi kii bi daal mooy conseil bi daal mooy bul toox bul naan bul yàkkamti parce que tux ak naan day yàq nit day yàqal nit surtout nag xale boo xam ni da nga ne musique nga bëgg a def amoo lu dul sa baat baat dañ koy conserver baat instrument la te dafa am lu koy yàq donc conseil baa ngi noonu pour tous les jeunes nag c'est valable pour tous les jeunes góorgóorlu te bañ a fàtte nag jaamu yàlla ci la bokk de parce que am na ñoo xam ne ñoom fi mu ne bu ñu xasee ba commencé am succès fàtte nañ ñi. Mm-hmm. ay jullit lañ. Mm-hmm. fàtte yàlla. Mm-hmm. yooyu yëpp dafa gaaw mën a dafa mën a dal musicien. kon nag ñu bàyyi ci xel. Mhm. te xam ne mën nga def sa carrière te du yàqal dara ci sa diine quoi vraiment. Mhm. voilà tey question moom sañ ma la wax sa mot de la fin amul problème. loolu moo la fi sa sa de la fin. <laughs> ci émission bi. ci émission bi ok bàyyi ci émission bi daal <laughs> maa ngi leen di sant. Uh-huh. di leen gërëm. Uh-huh. Uh, di kontaan ci ñëw bi. Uh-huh. Uh, question yi traité nañ ko bu baax. ñëw leen pour rien. je pense wax nañ li ñu war a wax. Mhm. ah bu ñu juumee aussi ñu ngi jéggalu parce que mhm. bëgguñu woon wax luy offensé wala luy wax bu dëgër. Mhm. mais liñ ci jublu rek mooy. jaboot moo sonn ko boo xasee ba jur doom rek moo moomatoo sa bopp. parce que xale yi li may wax rek. bu ñuy dem doo leen yëg. mais bu coow amee rek. ñu ñëwaat. ci yow. sa normal. kon sant nañ leen gërëm leen ci ñëw bi. ñaanal yéen aussi seen liggéey. Ah. yàlla bu ngeen fi gaaw ñëwaat nag ci ay coow yi quoi. <laughs> bu ngeen fi ñëwaat daal na lekk loo xam ne ay sorti album lay doon wala ay programme anniversaire wala xam nga mais coow xale yi moom non marax ba merci beaucoup <laughs> jërë ngeen jëf. Ah, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon suivre vraiment ñu am mbégte euh, ci ñëw fii aussi tamit mu doon ku ku ku ku ouvert aussi tamit lii la xaar ci kilifa parce que yombul tey. say njaboot am jafe-jafe nga dox ci parce que wax dëgg yàlla tey sortie yi mu def yëpp dañ koy remercier parce que dox na ci ay tànku jéego ba mën naa ne tey ñu baree bari daanaka sax ñu ngi commencé fàtte coow li yéene bi mu ci am ak mbébét bi mu ci am yàlla na ko suñu borom mottali ñu ngi leen di jox yeneen dig daje su yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf